saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey doore kook inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Jules Baldé Junior mi fi jàngoroom yéemoon ñépp bu ci nekk di ko ñaanal yàlla ngir mu jóg ak lu làmb ñu ci bari defoon ko yitte ngir mu jotaat wér gi yaramam moom Jules Baldé Junior na wuy ji boroomam bàyyi fi naqar ak tiis wu yéem ñépp mbooleem ku bokk ci làmb bi nga xëyee yëg li ni mel sa xol tooy na mbooleem ñi ko doon taxawoo ko jàppale bi nu yëgee li ni mel seen xol tooy na mën nañ na beneenum a fi des dal ci waa Pikine démb mooy Eumeu Sène ma nekkoon ci loxoy waa gendarmerie démb ci ajuma ji lañ ko convoqué ci gendarmerie moom ak ñaari jege ñaaleem li ñu leen doon toppee mooy benn sàcc bu doon sàcc seen oto far ñu jàpp ko sàcc ba dafa mujjee ñàkk bakkanam moo tax ñu convoqué Eumeu Sène ak ñaari jege ñaale ya moom laa njang porte parole taay la mu xam le mooy benn waay moo doon jéem sàcc oto Eumeu Sène jot naa toj verre ya ba jël ca bagage si nga boobee lañ ko bàyyi mu dem ñetti promoteur a ngi ci ginnaawam ku ci nekk kombaam la bëgg muy sunu papa Gaston Mbengue di Fallou Ndiaye di Vox Arena ku nekk ci ñetti promoteurs yi lenn rek moo la ñor nga taxawal combat rëg-rëg ak beneen bër bu dee père Gaston diggante rëg-rëg ak tafaatin la soxla bu dee waa Vox Arena ñoom it soxla nañu rëg-rëg bëgg koo wutal beneen adversaire bu dee Fallou Ndiaye moom it combat rëg-rëg ak Malick Niang la soxla journal ba bordeaux loolee moo waral père xaadim samb génn xam ne Boy bu dee ay mbokkam wala staffam ñoo ko bàyyi loo bile bu dee ñoo ko bañ u kase bu yóboo tas staff ba bu yóboo bàyyi leen te xam ne ko ndax ko xañ bile bu weer dee la jox 500000 francs nga fay ci sa ndox fay ci sa courant mbooleem ñi lay bàyyi waxu loolu mal sens la wala mauvais coaching Boy Niang nga xam ne Balla Gaye 2 moo ko teree woon a nelaw tuuti moo desoon ñu taxawal bile combat combat li gënoon a jafe mooy gis promoteur bu ko bëgg Père Gaston ñëw na bëgg na ko génn na ca xaalis li li ak staffam waruñu woon a nangu benn yoon mu leen di échappé waruñu woon a nangu mu leen di rëcc dañ caa waroon ni ciixte moo waral journal ba ca dooli ne Ama Baldé daal moo ëpp Boy sens Boy Niang ku ko bàyyiloo bi le combat lor na ko jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën a fës ci etu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje